ñu leen di nuyu di leen ziare ci seen télévision Touba Argentine TV ñu ngi ci waajtaayu màggal Touba 2017 tey jii ñu amoon gan ñu tedd ñu ñu fi ziare si woon muy waa kër Seydina Seydi Hadji malik si bokk nañ ci ñi fi teew Mouhamadou Lamine e, fay ak Serigne Modou fay ak Serigne Hassan Faye tey ji ñëwoon doon fësal seen yéene. Euh, ci ni ñuy waajalee màggalu Serigne Touba gi nga xam ni at mu jot dinañ ko àndandoog ñun fii ci dëkk bi euh, Serigne Modou Faye euh, ak Serigne Assane ñooñu lañ leen di bàyyeel ñu fësal seen yéene ci xasay xaside yi sunu Serigne bu tedd ba di Seydi Hadji malik si sëriñ si bismillah min kulli wasfin حميد هذا أبا لا تفضيل رجاء البرايا يوم مضدها عذف أيوة حميد حال أبالا على تفضيل رجاء البرايا يوم مصدر من كل وصف حميد, حميد هذا أبعى لا تفضيل رجاء لنا من كل وذف حميد هذا أفعل بن حميد هذا أفعل على تفضيل رجاء البرايا يوم مصدى سيد الحاج مالنا وحاد ما حاد لكن لا يماثل من تودع خشوع القلب ونعم مولانا من كل وظف حميد هذا أفعال تفضيل رجاء yàlla lii de am na solo lool ku dégg lii xam ne lii moom passif dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla lañu fi fisal tey kon nag eh, dañ leen di bàyyi ak sëñ Mouhamadou Lamine mu sànni ci ay kàddu comme ni ñuy ni mu daan ànd ak ci bis bi kon sëñ Mouhamadou Lamine bismillah kàddu gaa nga eh, mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, ñuy am contentement bu baax ci daje bi ñu dajewaat ak yéen fii ci Touba TV Argentine ñuy waajal bés bu mag bés boo xam ne que macha allah jàmbaar ju mag liggéeyoon lu liggéeyam bu rëy boobu noonu ba ñëw indi ñu ko muy suñu sëri ca ca Sénégal ba dande woon Sénégal waaye foo mën di dem ci àdduna bi fi mu ne nii ñépp ñi ngi koy bàyyi xel muy 18 safar muy bésu si Ahmad Bamba xaadim rasul ah, yal nañu ko yàlla feel yal ko yàlla feel ah yàlla nag dafa def macha allahu mënuma wax wax ju bari ndax dama déggut lu bari moo tax waaye nag ma am contentement bu baax ci dalal ngeen ma dalal fii nii ah woo ma ci li ci ki nga xam ne ku ma sopp la ku ma bëgg la macha allah yàlla moo ko def la ñu am contentement bu baax di ñëwaat fii di ko bokk ak yéen ah la comme lépp rek macha allah xam naa ne damay bàyyi sama mbokk yi ba ci kanam rek ñu door a gën a yaatal incha allah. ah kon sëñ Mouhamadou Lamine kàddu yi am na solo lool kàddu yi am na solo lool kon sëñ Modou ñu ñu jox la kàddu gi nga nga sànni ci ay kàddu rek ah, dolle soññewaat rek ci li nga xam ne ñoo ko bokk bismillah. barakallahu eh. baada auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani wa wasalaatu wasalaamu ala sayiduna muhammadin salallahu alayhi wa alihi ajmain eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar eh, rawatina nag mbokk yi nga xamante ne bi ñoom lu ñu bokkal nekk fii ci Argentine ak waa diaspora bi yépp ak tabarakallahu am kontante bu rëy li ko waral mooy am bés bu rëy boo xamante ne bii képp kuy nit ku ñuul rek sa fierté la waaye képp ku di sénégalais sa fierté la rawatina nag ñi nga xamante ni bii ñoo di ay sénégalais di ay nit ñu ñuul macha allah yàlla def ñu di ay jullit ah, ndax koo xamante ne bii liggéey na liggéey bu mag muy maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu liggéey liggéey bu rëy boo xamante ne bii lu tollook juróom-ñaari at nga ànd kook yoo xamante ne bii yeneen it der lañ e, tabaarakallaahu ba dellu si yàlla defal la ca ndam nga cey sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala woote ne képp koo xamante ne bii rek e, sant naa ñépp ñu santale ma suñu borom ndax macha allah ku yàlla defal lu rëy nga war koo fayee lu rëy e, fay gi koy fay nag bokk na ci 18 safar bu jotee ñépp ci njaboot gi moo xam muy tiijaan moo xam muy xaadir moo xam muy laayeen ñépp ngi àndandoo rek jëm ci dëkk bu sell boobu nga xamante ne bii moo di Touba. Eh, macha allahu ñu ñaanal kilifa ga fa nekk muy Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke nga xamante ne bii liggéey bu rafet mu ngi koy liggéey jamono bi diiran bu mu toogeek ak léegi macha allah ci rafetal ak diine yi lépp kër gi mu def ko benn e eh, macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko mu yàgg jiite eh, ci barke yonent bi barke maamam Cheikhul Khadim Ah, ñi muy yàgg jiite it topp ci kawam yàlla dolli it juboo gi am na ba nuppi ah, ndax damay dégg rek kilifa yi di wax naan benn kër ñëpp duñu bokk tëdd ci benn néeg ah, tabaarakallahu bu guddee ku nekk dugg sa néeg suñu xëyee nag ñu ñëpp ñu daje ci penc mi lii nag ci penc mi la daje tey waaw incha allahu rabbuna di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla may ñu yàgg koy fekke màggal gu ñu mas a màggal tamit eh, yàlla nangu ko yàlla na ca boole bii moo xam ña ca Sénégal moo xam ñi ci diaspora bi yépp eh, sant nañu ci yàlla bu baax a baax incha allahu waxe kon nag ci ndigalu président Mouhamadou Ba bi nga xamante ne bi moo jiite daaira bu nekk fii nii bu Seydi Haaj Malick radiallahu anhu eh, ñu ñëw rek dal di doon làmmeñam waaye ak mbooloo mi nga xamante ne bi moom la ñu àndal muy mbooleem daaira bi yépp eh, incha allahu rabbuna lii day dañ ko tàmbalee rek ci waajtaayu màggal gi waaye bu yàlla dogalee bañ egg ci bés ba incha allahu laa nañ ko daan àndee ci lépp lu rafet e, incha allahu naa daañu ko ànde noonu ba lépp di gën a rafet e, ñu ngi ci nuyu ñëpp nag nuyu tamit kilifa yi nga xamante ni bii ñoo jiite e, ku mel ni ki sëñ Yankuba Guèye ak mbooleem ñi nga xamante ni bii rek ñu ngi fi te ŋànk ko tey rafetal ñaana leen yàlla yàlla dolli sag beeg sutura si ak mën geeg wër gi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba li ñu jub muy màggal gi ñu defe ni nga xamante ne bii noonee la ko ka ko santaane bëgge ci barki bi sallallahu alayhi wa sallam ah, xanaa sëñ Assane ñu jox sànni ci ay kàddu yow it. incha allah tabaarakallah tabaarakallah macha allah di wax asalaamaaleykum nuyu ñëpp di leen ziyaara xam naa ne dañuy. dañuy dañuy sof rek ci li gaa yi wax waaye duñu sos tabaarakallaahu ndax xam na ne liñ fi wax yëpp rafet na macha allah buñ cee man rek doy na nuyu lañ leen bu baax yéen waa Touba Argentine TV di kontaan seen liggéey macha allah liggéey bi am na solo ah di wax ne ñu ngi leen nuyu bu baax sëriñ Saalix ñu ngi lay ziar bu baax nuyu waa daayira bi yëpp ah di wax ne macha allah dañu jub bés bu rëy bés bu tedd macha allah di bés boo xam ne ah képp kuy jullit rek tabaarakallaahu sa bés la. ndax bis boo xam ne bis sant yàlla la ah yàlla ne sant leen ma ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli gannaaw ba ñu yàlla mayee wabatiku ñu sant ko mu ñuy dolli tabaarakallaahu yàlla na dolli gi gën di sax sur ah mu bés boo xam ne ku tedd ku sell Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu liggéeyal boromam ñëpp xam ne liggéeyal na boromam muy koo xam ne macha allah ah ci ci ci ci ci àddinaam yëpp dundam yëpp daf ko daf ko jaay rasulullahi sallallahu ba tuddee boppam xaadimul rasul mbindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku nga xam ne léppam yàlla la yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ah tabaarakallaahu ñun moom dañuy ñëw rek di sof ci lim sof waaye amul leneen lu ñu fiy sosaat tabaarakallaahu ñu ngi ciy kontaan bu baax e, di di kontaan ci yaatal gi it macha allah niñ ko doon àndee toujours bu neexee yàlla daañ ko àndewaat noonu tabaarakallaahu e, muy gën di rafet toujours na ko suñu kilifa yee diglee nañ ñu ko sante tabaarakallaahu di ñaanal xalifa bi sëriñ Mbay Si Mansour yal na yàlla yàggal ko fi di ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke na yàlla yàggal leen fi ñoom ñëpp tabaarakallaahu di kontaan trop sëriñ Saal kontaan nañ trop macha allah ah di ñaan ci yàlla yal na yàlla buñ ci bis ba ak jàmm ak jaak jàmm feete ko jàmm lépp luñ ci jaamu yàlla yal na yàlla nangu moo xam ñu ne fii ci Argentine wala ñu nekk feneen ci diaspora bi wala ñu nekk Sénégal tabaarakallaahu xam naa kàddu yi di gudd dañuy jégalu bu baax rek ah di di wax ne yàlla nañu yàlla yóbbu ci bis ba li avant première la rek incha allah bu ñu àggee ca bés ba daañ def mot suñu yéene incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah jërëjëf jëre jërëjëf sëñ Assane mbokk yi kon yéen a ko déggandoo kàddu yi ku ko dégg xam ni kàddu yi borom Pastef ak borom yéene feeñal nañ seen yéene. ñoo ngi leen di sant bu baax ci e, déplacement bi ngeen jóge fu sore ñëw fii bàyyi seen yitte yëpp e, sëñ moodu e, yaak sëñ Assane ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax xam ni lii du tey rek waxtu wu ne yéen a ngi programme bu ñu am yéen a ngi ànd ak ñun kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax ci ndigalul jëwriñ yëpp sëñ yan xooba ak ñi topp ci ginnaawam. ak ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax te eh, kon nag mbokk yi yéen ko gisandoo noonu màggal gaa ngoog ñoo ngi leen di jox daje. ba la 7 novembre incha allahu rabbi Sampegna ñoo ngi ñaanal ñëpp ay xéewal yaatu yal na ko yàlla defal ñëpp di ñaanal sëñ Sidil Mokhtar mu yàgg fi lool te ànd ko wér ñaanal sëñ Mbaye Sy Mansour it mu yàgg fi lool ànd ko lii ku ko gis xam ne lu rafet la wax dëgg yàlla nañ ko daan ànd Sénégal it na kilifa yo booloo fii taalibe yi fi ne nootu noonu lañu ñu booloo kon nag yàlla nañu yàlla defal euh, aw defal ñu sutura ak xéewal yaatu jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah